di doon direekoo karaamaka watatu far na egg nag ca ñag ba yëngu-yëngal yi ci réew mi bu dakkul senegal doom lay mujjee moom kay nag liy taalaka tàngal ci miir réew xanaa du safoor si kese gaynde gu tëx du dégg jat waaye ñoo lànk ba tëdd ca ñag ba duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg na fi kuufur fa bi jóge rekk wala dootuñu nelaw du samay kàddu nañ àndandoo yër xët wu njëkku journal yi L'As L'Enquête La Tribune L'Observateur ñoom ñëpp ñoo tey xëy amee seen xët wu njëkku yéenekaay ak yëngu-yëngal yi ci réew mi ginnaaw yëngu-yëngaluk safoor si waa askanu Sénégal nag fippu nañ moom kay nag moom mer rek la ñu def ne xawma lu fi dul jóge waaye ku fur fa bi moom du ñun ak moom enquête nañu virus bi kay léegi dafa far bàyyi nit ñi fan rek topp mbedd yi laas na wax ji ca moom ne ko Dakar moom moo jël raw gàddu gi ndax di mu guddig biig moom dafa wex xat rek ci moom tàng jëpp rek la def ndax gox yi di yoof Grand yoof pikin Castor Liberté 6 xaar yàlla ñaari tali ñoom ñëpp rek guddi bi kenn nalawul l'observateur ne ko moom kay nag moom bu fa yemoon sax mu neex ndax gox yi di Ziguinchor Mbour Saly Kaolack ñoom ñëpp far nañ nag laale si ci xeex bi le quotidien nañu moom kay nag couvre-feu bi xanaa dañoo far rek soppi tur yi far ko tuddee rek fa couvre Sénégal na door paa gi far na law egg ci waa l'armée Sénégal Aly Ngouille Ndiaye moom kay nag lu fi musta am rek la fi am guddi bi kay ak armée Sénégal rek la far wàccee ci mbedd yi ne bu kenn génn mayuñu kenn muy dox a karandal fenn rek képp ku yëngu-yëngal rek nañu ko tas wala ñu jàpp yóbbu ñi seeni nelaw jeextan jeextan jaaxle lool ci jàngoro coronavirus këru mooy këru santé gi di waa l'OMS wax waxet amatina ñu ko def tey waa kërug santé ginnaaw dogal bi ñu jëloon ne dañuy dakkal lépp lu jëm ci niwaa kirin gi ñuy faje jàngoroy coronavirus bi li hydroxychloroquine far nañ jëlaatub dogal ne ñàkk pexe pexe la moom kay nag moom ni waa Kilin gi rek moo fi sës bi lay ko coronavirus bi moo dëgër bopp ndax nu ne rek def nañ ko ñii kay nag moom seeni pexe rek daa far jeex ne liñ mënoon lépp def nañ ko def nañ na buntu boobu te àndandoo yër xër wu njëkku libération li yéenekaay bi Bougane Zali Bougane Zali responsable apériste bu géejawaay bi moo amee xër wu njëkku libération ubbil yéenekaay bi Bougane Zali miñ doon toppee coowal foo biir novembre 2019 bi weesu far nañ ko bàyyi may ko lii ñu duppee liberté provisoire man daal Sénégal jaaxal nañ ma liberté provisoire yi daal ci la ñuy bànneex wax moom daal da ngay luubal ba pare def la ngay war a def ñu jàppale rek daal lay bàyyi kon na Ousseynou Ndiaye tëjal ba beneen yoon.